maa ngi leen di nuyu. da nga euh, bokk ci actrice yu série Vautour wala da nga ñëwoon pour. non non euh, Even Prod c'est une famille en fait c'est notre famille bokkuma ci Vautour mais vu que c'est un projet Even Prod on se sent obliger de teew. d'accord nan nga gisee premier épisode bi ñu diffusé. ah non magnifique tolloowul ak dara pour le moment vraiment tolloowul ak dara c'est magnifique côté image côté jeu d'acteur c'est c'était magnifique. infidèle doy na waar de moom lañ gën a seetaan de est-ce que Vautour dina mën a euh, renverser infidèle non Vautour suul na infidèle sax boobu moytu non par rapport ak li ñu gis tey c'était voilà j'ai pas les en fait tellement c'était beau euh, nga ci am lan lañ ko Sénégalais euh, personnellement nag gisuma ci dara lu ñaawa dégguma ci dara lu ñaaw a contraire j'ai vécu plus de positif que de négatif. par rapport ak rôle bi donc waaw euh, ouais, non. ñooñu femme divorcée la après parewaat amaat yeneen copain yooyu est-ce que c'est positif tamit. non euh, mais ça dépend loolu dañ koy dund fii. <laughs> nan nga gisee rôle bi ni nga ko interprété lan lan moo la gënoon motiver pour nga xool ko wala da am benn exemple boo suivre boo xool boo jàng pour mën a réussir. exactement parce que bon rôle souvent boo koy jouer soit di nga xool koo xamante ni dund na lu xaw a similaire. Euh, nga jéem a tenter si moom dund ko euh, plutôt jouer ko donc euh, peut-être xaw na nduroog man sax vécu vivi foofu tamit ngeen wane côté ami amitié xool ngeen ànd mais ñu bëri dañuy jëwante seen biir dañuy dam am ay coups bas si biir mu am sénégalais yi am na ñuy dund loolu. no amitier jigéen amitié jigéen ça c'est vrai mais nag sant yàlla man moom benn xarit bi laa am donc. non on tout le temps ensemble elle c'est ma petite sœur sama rakk la sama xarit la sama c'est mon tout lii nag moo tax peut-être ñu ñu on a compris beaucoup de choses si àndandoo jigéen naa moo tax pour jaxase ñu du yomb waaw. merci beaucoup. yàlla si koo xam ne nag chef de la waaye ñëpp ko fan moom dafa nekk bande bu ñëpp fan. tamit. bande bu ñëpp du du du du bandi en fait femme caractère bi la ñuy fan. tu vois. Ciara ah, du bandit en fait c'est une femme avec des principes tu vois am lu muy bëgg ak lu muy bañ mais du baale loolooy catu Ciara. waaw gang bi nga formé noonu jigéen ñeeg yooyu noonu am benn vécu tamit bi am bi nga am si Ciara am si série bi ñu euh, am loo xam ne passé peut-être moo tax mu nekk lu mu doon après formé ay jigéen ak yooyu noonu. non boo seetloo les gens n'ont pas compris l'histoire en fait je pense je pense que ni euh, c'est une groupe de femmes sama njaboot bi tu vois ku nekk am na histoire am vécu am donc euh, c'est une groupe de femmes yi nga xam ne ku nekk dafa am na kar yàlla daf ñu bokk tu peut-être man maa leen magoon maa doon kilifa bi donc ma jël ñëpp uuf tu donc ku nekk que soit Big Mama Ngoni Chanel sama doom Kassim donc ku nekk foofu am na histoire am donc ça représente que ni euh, ñoom ñëpp am na benn euh, li tax ñu booloo tu am na benn link parce que boo demee euh, li ñuy wax tout le temps mooy famille bi te boo seetloo suñu parole tout le temps dañuy wane ne lu ñu amul woon suñu kër moom moo ñu boole tu vois booboo ñu boole donc je pense que c'est ça. dama d'accord ay bandi ngeen ne ndax baraake ngeen fi <laughs> ah yéen c'est ça en fait on croit pas assez euh, les sept péchés capitaux on croit pas la justice euh, donc pour ñoom euh, gatsa gatsa bi mooy mooy njëriñ te gis ñu fu mu donc di ñuy jàngale foofu que ni àdduna mën naa ko def naa ko du mu maanaam du la apporter dara parfois da ngay gis dara mu leer na ni mën nga ko ligganti nga bàyyi mu sedd ndax ñi muy lor a bëri caractère bi comme nañ wax caractère bi kon <laughs> bi nga am ci série bi est-ce que musoo génn nga am euh, nit ragal la wala ragal la rap approché wala. non parfois sax nit ñi dañuy def ne ni genre peut-être am na ñu euh, ñoo xam ne ni xam nañu série la am na ngeen ni bu ñu la gisee dañu lay gëm a napp parce que dañu jàpp ni bandi la mais c'est juste une série Ciara Meurs ak Agui Agui Ciara ça n'a rien à voir c'est autre chose te. Euh, tey talent boobu noonu donc je tiens vraiment vraiment à remercier Evenprod tu vois parce que tey nekkoon naa si équipe tout ça mais Ibou Gueye dafa def siara génne beneen facette Ciara que moi-même man si boppam je m'attendais pas de ça xaw xawuma ko woon si sama donc donc il a su tete ma comment marcher avec toute l'équipe technique. Donc, euh, je tiens vraiment à remercier Evan Prod. et toute l'équipe technique. Franchement, déjà. est beneen série nag. <laughs> mais beneen série euh, lépp ça dépend de Ibou Gueye tu vois parce que moom mooy bind moo xam donc bu la dugalul fii parce que ñun ñëpp xam nañu xam na ku nekk ak lu mu mën ak lu mu mënul donc bu gisee dara loo xam na ni tey. ñun acteurs yi wala actrices yi mën nañ ko xam naa ni yéwén na yéwén yaatu na yaatu boo xam ne ni tey tu vois ñëpp am nañ si place te Evenprod dafa nekk kër goo xam ne ni voilà ñëpp am nañ si place. dernière question ban rôle ngeen xam ne bu leen ko joxee doo leen ko interpréter. Euh, je sais pas encore parce que yëpp mën waaw tollooguñu suy foo xam ne ni dañuy def tout nu wala di def ay séquences yoo xam ne ni voilà. donc tollaguñu foofu stade boobu mais bu passé loolu yu ñuy jot a kii yëpp voilà mën nañ ci dem. je non rôle nu daal waaw tout nue toute nue non non pas ce rôle là. merci beaucoup ok merci